julli ci yonent bi ak i saxaabaam sant Seydi Ahmad Tijaani Sharif radiallahu anhu di sant nag suñu maam alaaji Abdoulaye Niass sant xalifa alaaji Mouhamad Niass di sant suma waajuru jigéen gannaaw bu loolu wéyee maa ngi def déclaration boo xam ne ci kaw ci la ma tax ma di ko def moo di lépp loo xam ne moo indi wax ji jarut di ca dellu mooy xam ne jàmm ak salaam moom rek laa bëgg nit ki nag buy oote jàmm yaakaar naa ne doo oote aw xay kuy oote jàmm jàmm la ngay bëgg jàmm jooju nag moom laa bëgg bëggal ko ñëpp su ma sañoo nit ñëpp am jàmm réew mi am jàmm te Sénégal amul nu Sénégal kenn munta a met ba toxu ba toxu fu génn fu gën Sénégal wala foo demee doo am lu yem lu yem Sénégal kon nag man Cheikh Tidiane Khalifa Niass déclaré wu ma guerre tey déclaré wu ma guerre ëllëg te képp ku wax ne man dama ne dama déclaré guerre kooka moo sos ay waxam seet na mu ko bëggee ngir salteel wala ngir tilimal waaye duhut lu dut ki nga xam ne tey moo la fi yàlla teg muy Macky man de tuutulu ko fonk naa ko naan ko ñaanal tey xam na ci dara sama xarit la tey itam xam na ci dara kon suñ nee damay déclarer guerre ñooña ñoo déclarer guerre waaye man déclarer ma guerre man jàmm rek laa woote. li nga xam ne noo moo andi yëf yi de mujj nag ah sama doom laa sant mu jiitee ñu bëgg def nu su noonu man a bañ ne duma ko nangu te it sama waxee démb ji rek ba tey moom laa delloo wax lu wax ne sëriñ amul lu may juróom wala ñeent jàkka ja téere ba tool ya taalibe ya loolay am ñu loolu daal ku ñu bayee suñ diine ñu gën ñu man moom a gënal te jumaa ji buñ ko tëjee fu ñu ñaanee yàlla nañ ubbi jumaa yi ubbi jàkka yi ñaan yàlla mbas mi yàlla delloo ko fi waaye suñ tëjee jumaa yi tëj jàkka yi te ubbi marché yi ma ne bu ñaanee yàlla yàlla du nangu kon nag Macky la ma waxoon démb rek boo tëddee nelawal man de maa ngi lay ñaanal kontuuru ma la nag tuutulu ma la nag ndax su ma la tuutee sama bopp la tuuti. li des mooy li nga xam ne moom laa ci toog mooy eh, affaire yi jàkkee ak jumaa yi comme solution boo xam ne nattuwaay boo xam ne moom na moom ngeen bëggee ñu doxalee ko ñu doxalee ko ko te it wax dëgg yàlla am Wolof Njaay am na lu wax nee na sangul. sa taar nga bëgg ku ne la songul sa taar la bëgg kon nag léegi ñun bëgg nañ ñu ubbil ñu jumaa yi ubbil ñu jàkke yi seet leen ni ngeen ko bëggee ñu ñu def ñu defee ko ko taxawee ko ko euh, matee ko ko buñ ko defee danañ xaar suñu bopp xaar réew mi loolu daal mooy li nga xam ne moom laa ci teg yow mag yi bëgg naa nag mu nga bañ a yàgg ba mu bañ a yàgg ba bañ a yàgg jumaa yi ak jàkk yi nañ ko ubbi. ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye audio bii may def yaa moom di la ko santee di la ko gërëmee di la ñaanal dama la waxoon ci suba rek moom laa yàlla waxati incha ci kaw rek ci kaw rek léeg-léeg fi nga jàppale mag yi te gis naa tànk yi nga koy jàppale gis naa loxo yi nga koy jàppale réew mi yëpp gis nañu nga jàppale loolu yëpp maa ngi lay ñaanal mu sax te yàlla nag musal la ci gémmiñ goo xam ne dafay yàq diggante yow ak mag yi te parce que am na làmmiñ làmmiñ yu bon waaye làmmiñ yooyu yëpp yan yàlla tax na làmmiñ yooyu téyel la ko incha allah yàlla na ko def wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mawla